bi mu duggee ci politique man jàppoon naa ne lu mel ni kii di usman sonkoor di apporter. Mm. nga xam ne Ousmane Sonko indi na ko ci wàllu politique indi ko ci ndaw ñi. Mm. moom bu duggee ci politique man na cee apporter lu mel noonu mën na cee indi lu mel noonu. moo tax man bi mu duggee ci politique dama jàppoon ne wax dëgg yàlla euh, euh, askan wi danañ gën a am fu ñu taxaw nag wax dëgg yàlla mm. waaw danañ gën a am fu ñu taxaw. Ah. waaye dama am lu baree bari loo xam ne mbetteel la ci man. loo xam ne mos na maa dégg benn jàngatkat sëñ Modou astu wax ko. waaw te ma gëm ko ca nag. Mm. gëmoon naa ko waaye gën naa ko gëm. Mm. mooy xam nga Ousmane Sonko sax juñu na ko démb mooy dafa am ay opposants yoo xam ni. ñoom dañ leen a créer. Mm. ngir lan ngir ñu wëlbatiku maanaam opposé wu waat ko moom Ousmane Sonko. wala boog dañ leen a créer ngir bu ñu tuddee Ousmane Sonko tudd ñooñu. au mbir mi di nekkati léegi diggante ki jiite réew mi ak Ousmane Sonko. waaye dafay dafay tourné waal sax dekk diggante Ousmane Sonko ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay opposants hmm. dama jàpp ne nag loolu moom moom moo ko gën a jëmmal moom moom ci boppam. moom Pape waaw ndax moom bi bi mu fii dalee nekk ba léegi di def politique lenn hmm. rek la ñu xam. waaw mooy ay sorteem yépp Ousmane Sonko lay attaqué. Hmm. ak ñi ànd ak Ousmane Sonko. maanaam man damaa jàpp ni. day laal ci ñaar day laal ci ñaari côté yëpp de. dama de nangam jër bu taxawee ni xam nga day day laal ci ñaari côté. xam xam nga laal ci ñaari côté mooy lan. Hmm. mooy mooy li ñenn ñi di wax rek xam nga daa am yoo xam ne léeg-léeg booy wax fee di wax fee. tekkiwul ne kee nga bëgg waxal waaye daa am koo bëgg a waxal yow. Hmm. maanaam nga bañ ñu naan la da ngay da da da da ngaa da ngaa da xuus fii ba ëpp da nangam. mu tax ngay jël kee jël ke jël kee waaye yow sa objectif mooy am na ko jubloo attaqué liñ naan boo nee ñëpp yam am na koo mere. am na koo mere ma ngoog. Oh. am na koo mere mais xam nga hmm. moom ay attaque ay attaque am noonu la da ngay génn mu daan ne di jiite réew mi nangam daa daal di wax Ousmane Sonko nangam mais moom Ousmane Sonko taxu koo jóg waru koo mën a tax a jóg. Ah moom li ko war a mën a tax tax a jóg jàpp naa ne ak aw nitam. Hmm. mooy lii fi nekk nii mu dañ fi mu jóge fi. Hmm. waaye moom dafa mel ni ak aw nitam dañoo jël seen énergie bépp def ko ci Ousmane Sonko. boo xoolee ñi ànd moom sax ñi ànd ak njiitu réew mi ni ñuy opposé woo Ousmane sonkoo ñi ànd ak moom noonu la ñuy opposé woo Ousmane Sonko. te moom mm-hmm. ñaari yoon yi muy wax nii euh, ci yi nga xam ne dafa wax ne dañ koo yuuxoo wax dëgg yàlla am sëñ Fallou. Ah. Ousmane Sonko lan la man bu njëkk ba daf ne waa Pastef ko ko def Ousmane Sonko génn naqarlu ko. waaw daal cay wax wax ju dëgër dëgër jëmale ko ci ay farandoom. Mm-hmm. Ousmane Sonko de wax dëgg yàlla mënut a weesu beneen bi ci tegee mooy bii avant muy am Ousmane Sonko ndax ci ay déclaration waxut ne yéen ñëpp na ngeen fa dem waaye bu ngeen fa demee leader politique bu fa ñëw na ngeen ko jox respect. Hmm. bu ko kenn yuuxoo bu kenn def loo xam ne nangam ak nangam. Hmm. wax dëgg yàlla Ousmane Sonko de xanaa moom foofu la mën a yem. effectivement léegi nag bu wëlbati wax loolu nga wëlbati ko taxaw di ko attaqué. taxaw hmm. bay dugg ci yenn mbir yoo xamante ne si maanaam nit ku responsable jàpp naa ne ci politique warut mën a lu mel noonu. ndax am na mbir yu muy dugg yoo xam ne Ousmane Sonko moom placé wu na lool ngir dugg ci. ndax jamono bu nekk Ousmane Sonko dund loo xamante ne si luy firndeel loolu la. pourtant mm-hmm. Ousmane sunko sensibilité bi loolu am tax na moom du ci wax sax du ci dugg. Mm-hmm. du ci dugg waaye moom mu wëlbatiku bëgg a xeex Ousmane sunko ba tax muy dugg ci loolu waaye man li li may wax mooy bu fekkee ne dañ koo indi woon ngir mu opposé wu ak Ousmane Sonko loola jàllut moom. Mm-hmm. jàllut wax dëgg yàlla mu jàllut. waaw ndax ndax moom jamono ju nekk askan wi dañuy gën a ànd ak Ousmane te moom li ñu mën a xam mooy da nga naan opposant la wala nga ne pouvoir laa àndal. moom bu fekkee nekkoo fenn moom. loolu nag beneen affaire la nag wax dëgg yàlla. Hmm. beneen mbir moom euh, ci li mu wax moom mooy euh, candidat wu jeunesse yi. Hmm. avant muy ñëw euh, ci politique dafa mel ni dikkam sax jeunesse bi dañ ko yàq dañ ko yàkkamti woon. Hmm. est-ce que jeunesse boobu waroon nañ ko seetaan ñu koy. def yii nii ci bu fekkee moom ab dikkam jeunesse bi dañ ko yàkkamti woon. dëgg la mën naa nekk. waaye ndax bi mu ñëwee tax na jeunesse bi ànd ak moom. ah nee na jeunesse bee ngi moom de. jeunesse bi ñu àndee parce ñoo ne ko yaay suñu dernier sens. bu fekkee mobilisation yi ni def la. yu mobilisation yi ni def ci wàllu politique kan ngay gis muy mobiliser jeunesse bi bay jeunesse bi waaye bay mobiliser ay mag yoo xam ne am nañu ay quatre-vingts ans wala nangam. wala ñuy bëgg ak ci ay quatre-vingts hmm. ans. di di mobiliser ay ay ay mère de famille ay père de famille. Hmm. loolu ci Ousmane Sonko nga koy gisee. effectivement ah ci Ousmane nga koy gisee. boo demee F24 keroog seen mobilisation bi. keroog li ñuy tuddee xaw ma suñuy milliards du rees xaw ma nangam. ñan nga hmm. fay fekk waa kër Ousmane Sonko. Hmm, bari jeunesse fekk ñëpp Ousmane Sonko la ñu àndal. Hmm. waaw kon moom euh, buy wax ne kon léegi bu fekkee jeunesse bi dañoo yàkkamti woon ak ñëwam. jeunesse boobu wan ko ginnaaw. léegi kon moom war naa jàngat ndax moom li jeunesse bi doon xaar ci moom ndax mi ngi ci moom wala déet ndax def na ko wala déet. te laa sàkk ci ne loolu amu ci moom wax dëgg yàlla. bi muy wax ci euh, mbirum Karim Wade maanaam injustice bi ñu muy xeex nee na fépp fu ñuy xeexee injustice ma nga ca mais tamit gis naa ni bi muy wax ci wàllum insi liñ teg Karim Wade cité na ko nommément liñ teg Khalifa sàll alors que contexte biñ nekk ci jamono Ousmane Sonko lañ nekk mais jaarul ci turu Ousmane Sonko ah, noonu lañ ko defee ci keneen. loolu moom déggoo li ma la wax dama ne la moom day jóg ngir xeex Ousmane Sonko moom c'est un opposant boo xam ne man li ma gëm. Ah. li ma gëm ba gëm ko mooy li Ousmane Sonko wax rek. mooy hmm. dafa am ay opposants yoo xam ne dañ leen a indi ñoom. ngir hmm. ngir ñu xeex ko moom Ousmane Sonko. Hmm. loolu rek mooy li am loolu rek mooy li am gisoo lenn lu Ousmane Sonko di dund ci ay jafe-jafe xam ne da nga ko mu ciy intervenir. amut da koy yàqal rek. waaw loolu moom dèjà yàqal na. mais tey bu jëlee waa Pastef euh, euh, qualifié leen comme ñoo xam ne euh, ñu immature lañ ñu matut ñoo xam ne maanaam ay nit yu manqué. waaw loolu loolu ah. loolu loolu sëñ damaa jàpp ne di ko wax. Ah. Euh, wax la joo xam ne xol bu jeex rek la. Hmm. ndax bu fekkee usman Sonko la ñi ànd ak moom day yaakaar naa ñi ànd ak moom laa la wax man xam nga ban seetlu laa def. Hmm. Ousmane Sonko ñi ñuy tuddee les intellectuels hmm. de haut niveau maanaam ca na mu gën a kawee ay xeltukat ay xalaatkat ca na mu gën a kawee ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko. beneen bi ci tege mooy boo jëlee ci nitu diine yi. ñan ca gën a naw laa la wax ànd nañ ak Ousmane Sonko. boo jëlee Modou Modou yi ku ñu àndal Ousmane Sonko lañ àndal. waaw te Modou Modou yi wuute wuñu yi ndax ku ci jàngul it da nga yeewu ñeneen ñi moom dañoo jàng ba pare sax far benn dem tukki ñenn ñi fa ñu tukkee fa lan jànge nga xam ne lu kuy jàng xam-xam nañ ko. mais mënuñu koo nangu Ousmane Sonko moom kuy wax ne maanaam ñi ànd ak moom. dañoo dañoo seenum xel. dafa manqué wala nangam. loola moom sëñ bi beneen kii beneen kii la Ousmane Sonko moom wax dëgg yàlla kuy hmm. xool ak di jàngat waxuma la waaye plateau yi nii rek ña fay nekk hmm. ànd ak Ousmane Sonko bokk ci Ousmane Sonko hmm. ku koy jàngat rek da nga xam ndax ñii seen xel dafa manqué wala nangam mais est-ce que mënuñu koo nangul li mu wax nag nee na nanguwul kuy jëfandikoo jeunesse bi du ko baale moom Pape Djibril Fall waaye tamit euh, est-ce que mënuñu koo nangul ne euh, dañuy gis ne Euh, gars yi jamono bu nekk euh, bu ñuy euh, def li nga xam ne mooy ay manifestation ay jeunes ñi ngi ciy dee ay ndaw ñi ngi ciy dee te te doo leen doo leen gis ñu yëkkati ci doo leen gis ñu naqarlu ko gis nga waaw jëfandikoo jeunesse bi waaw lan mooy jëfandikoo jeunesse ah xanaa woo leen ci say mbiri bopp Ablaye Wade Ablaye Wade bi ñu koy mais mi mi ngi qualifié Ousmane Sonko sax de égoïste koo xam ne maanaam boppam la gëm boppam la ñor moom lu ko neex mën na ah. ko wax Ousmane Sonko man dama laa tënkal wax ji dama ne la dañ koo créé ngir mu ñëw dal ci kaw Ousmane sunko moom loolu mooy projet am loolu ko ñëpp xam nañ ko hmm. ñëpp xam nañ ko loolu moom leer na mais jëfandikoo CNS bi tamit loolu moom ah. ay fee la léegi dama ne la mu doon def ñan ñoo ko ñan ñoo doon xeexal topp ko ab jeunesse hmm. léegi beneen bi ci tege mooy kii fi nekk nii njiitu réew mi ñan ñoo ko doon xeexal topp ko Mm. jeunesse bi la ñoo ko doon xeexal topp ko wala boog ñu ëpp ci ñoom ay ay jeunes lañ. Mm. usman Sonko mii jeunesse bi jëfandikoowul ab jeunesse bal man damaa gëm ne jeunesse bay jëfandikoo Ousmane Sonko. Ah. Ousmane Sonko nu muy jëfandikoo ab jeunesse. jeuness bi topp toppuñu usman Sonko dafa am lu usman Sonko indi di ab projet boo xam ne jeunesse bi dañoo gis seen bopp ci loolu. Mm. projet boobu am ñu jóg ngir ne du fi amee. waaw ah. ne kii jiite projet bi danañ ko faagaagal. waxuma la danañ ko faagaagal waaye projet bii ngeen gëm du fi amee. ñi jiite réew mi wax loolu ndaka noonu maanaam ñi nekk ci PDS u nekk ci PS ñoom loolu lañ gëm wax loolu hmm. daal ne lii du fi amee benn ku ko ci waxul jëf nga ko hmm. léegi jeunesse bi jóg ne loolu du fi amee hmm. ah waaw ay nit di jàmmaarloog ñoom léegi fu bu boobaa kan moo jëfandikoo jeunesse bi kan moo utiliser ab jeunesse jeunesse bi dañuy xeex ngir seen réew dañuy xeex ngir seen askan ñoom xeexaluñ Ousmane Sonko xeexaluñ kenn ñoom seen askan moo tax ñuy xeex beneen bi ñu tegee mooy dafa am ku ñu gis ne dafa amee benn projet boo xam ne ñoom mën na mi ngi leen mën na leen a jariñ mën naa jëmale réew mi kanam léegi ñu jóg di xeex ngir loolu hmm. di xeex ngir loolu bu fekkee kay maanaam utiliser ab jeunesse la kon képp ku fi mos a jaar ñu di la xeexal ak yu mel noonu ndaw ña lay xeexal kon xanaa da leen utiliser ci sa maslax ay bopp hmm. loolu moom sëñ bi ay wax la yoo xam ne tegiwut fenn hmm. tegiwut fenn ay wax la yoo xam ne man wax dëgg yàllam koy teg na maanaam xeetu discours la boo xam ne daa am loo bëgg dugal ci xelu nit ñi ak nangam ak nangam ak foo waaye moom mi koy wax gëmu ko ndax moom xam nga lan moo tax ma jàpp ne moom gëmu ko hmm. moom li ñuy teg Ousmane Sonko buñ ko ko doon hmm. moom moom moom ñi jot a ànd ak moom di ay benn benn di ay ndaw hmm. danañ jóg xeexal wala duñ jóg xeexal ko bu ñu jógul xeexal ko rek maanaam mooy mooy moom ñi ànd ak moom gëmuñu ko effectivement ñi ànd ak moom gëmuñu ko te te bu bu fekkoon situation bi Ousmane Sonko di dund moom lay dund wala keneen moom lay dund jeunesse bi di ko xeexal. Hmm. jeunesse bi di jóg ngir wallu ko. Hmm. ngir taxaw ne dañ ko bëgg a teg du fi amee. bu hmm. boobaa moom du taxaw naan dañuy utiliser jeunesse bi wala nangam ak nangam. yooyu ay waxu politiciens la yoo xam ne politiciens yi ku ñëw boo bëggee wax yooyu nga koy wax. mais ñun ñëpp xam nañ ne jeunesse su ah. bu fi mos a jaar boo xam ne jeunesse bi jaral nañ la ko. effectivement waaw jeunesse boobu nag. li tax ñu baree bari di wax naan waaw da ngeen di seen bopp da ngeen di perte da ngeen di def nangam. mooy ñoom dafa am fu ñu bëgg a jëmale jeunesse bi jeunesse bi dañ leen a jëmale woon ci ay affaire yu làmb hmm. jeunesse bi léegi yeewu nañ ñeneen ñun suñu yoon nekkutu ci hmm. ñu jëmale leen woon ci affaire way di leen divertir hmm. wàllu musique ñuy topp ay musiciens di seen bopp léegi jeunesse bi nee na ñun génn nañ ci loolu ci wàllu diine am ñoo xam ne dañoo jiite woon ay mbooloo ci wàllu caaxaan ah nga xam ne tegu ñu leen ci yoon wu baax waaye ci seen ay intérêt bopp rek lañ leen teg jeunesse bi yeewu ci loolu daal na ñun nekkatuñ ci loolu ñun léegi ci luy développer réew mi ak luy jëmale réew mi kanam ci la nekk